tabarkalla salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum sama mbokk internet yi nga xam ne ñoo may seetaan El Vision tey nag boole ma gisee maa ngi ñëw taxaw fii nga xam ne moom moo nekk yëmbal may ngeen di ànd man ci li nga xam ne moo nekk émission yaay kan tey nag ma ñëw seesi kii moo nekk góor gi mbuub moom di ànd ak équipe am daa koy nga xam ne moo nekk euh, dëkkam daa koy fekk fi nga ah, wax moom mooy kan ci El Vision Médias sama caméraman bu ñaawal bi loolu daam siré sama jëkkër ji nee naa sama ndox mu sedd boo ma timalee caméra rek samay xol daal di sedd topp ma rek ma daal di xool euh, góor gi mbuub I Put it in there. allah comme ni ma leen ko waxee woon rek nee tey maa ngi yëmbal daal di ñëw sees ki nga xam ne moo nekk góor gi Mboup mu daal di ak waa délégation daal di ànd ay xaritam daal di ànd ak ay doomu ndeyam comme ni ma ko waxee woon sànq rek nee moom tey moom mooy wax moom mooy kan euh, góor gi Mboup nuyu naa la. waa sama xarit bi maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. tey ñu ñëw fekk la sa gox. dëgg la nga ñëw fekk ma yëmbal fii nag fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee tey nu ma mel rek ginaaw yàlla waaye yëmbal la waaw am naa contentement nag bu rëy rëy woote fii yëmbal waaw. yow yaay kan. waaw góor gi moom benn xale la bu juddoo yëmbal rek. perli ki mbub di suñu baay Mariam Ndiaye mooy suñu yaay nag ñu màgg ci aar lépp luñu am aar la waaw góor gi daal léppam aar la ànd ak nag samay rakk ñi ñooy famille mbuubeen gi aadamaa ngi toog sama rakk la ñoo bokk ndey baay ñoom Youssou Ndiaye sama booy ñoom Ousmane ku lim jum daal. Ameth Dieng Cheikh fay seex Fall Cheikh Mbuub Aziz ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp waaw. lan moo tax nga daal di choisir li nga xam ne moo nekk euh, tëgg mi maanaam da am mboq boo xam ne day tëgg wala nga ñëw juddu fekk ci biir kër gi. waaw non tëgg mi deret la suñu baay daa tëggal ba tëggal jinne yi tëgg ne ban may ko kër kon tëgg mi par force la ñun bu neexee dañuy tëgg bu ñu tëggee day neex bu ñu tëggul day neex par force dañuy tëgg loolu la. daal tey ngeen daal di choisir tëgg mi est ce que doole ma ñamal tuuti rek avant ñuy dem dem ci biir émission bi waaw bu la neexee dañuy waxtaan rek ñun tëgg moom dañ ciy waxtaan rek duñ ci sax sonn dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan rek kon acca ñu dem bok, xam nga dafa am bu bu bu gaay di tëgg ñu naan nijaay na bagage yi dugg waaw waaw dama naan loo fraise na bagage yi dugg acca na neex góor gi dafa génne fecc bu bees góor gi dafa fecc bu bes wax leen na bagage yi dugg na bagage dugg génération góor gi ngi ci ginnaaw waaw ah. fire. loolu neexna ba paré eh, sank ma ngi lay dégg say biir wax nga né teug mi manam da nga ñëw sa dér la nekk da nga ñëw fekk sa papa diko def daal ci am li nga xamné moy kër am ci teraanga yow teug mi fa la la yobbu wa teug mi fim ñu yobbu bari na fim ñu yobbu bari bool na ma ay nit yu bax ndax bis bi am dara ñoo ñang ci sante ndax ay nit ñoo ngi soxla man gor gi taxna naa tëggkat di fayeku léegi 150000 ci sabar yi. teug rek teug rek jakarlo yi bu njëkkoon doon doon fay vingt mille géwél léegi nag géwél day fay ko cent mille yàlla ak man la waaw bis bi nag dañoo taxawal bis bu rëy. waaw loolu dinaa si ñëw yow nañu nañ ñëw sama question pare après ñu dugg ci loolu. waa tëgg mi tey boo seetee ñun ñii ngay gis ñëpp ay xale lan jujuwuñ sax mais nag yàlla may nañ ci sabar loo xamante ni fu ñu bëgg a dem dañ ciy dem te ñi ñaa ngi bëgg boole nañ ci ay nit ñu baax di ci fayeeku weer yor ci sunu kër yi. na mu ñu dara ndax sabari waaw na namuñu dara ndax sabari loolu jeex na ngay waajal programme bu rëy programme bu ngande ngande ngande ngande ngande hmm? waaw li ñuy waajal nag le 25 le 25 décembre ànd sec génération góor gi ñoo ngi nii ci ginnaaw ñi nag ñoo tax wéetuma dara ci bis bi bis bi wéetuma ci ndax parce fu may dem ñooy ànd ñoo ko nasandoo daal ñoo ko nasandoo. te dégg naa na nga ne programme bi da nga see woo ñu bëree bëree bëri say parrain ak say marraine li mal ma leen ma dégg. waaw parrain yi ku ci mel ni Salbe Ndom woo na ma jàpp na ci. Salbe Ndom mel na Salbe Ndom mel na jàpp na ba tamit woo na ma jàpp na ci ma tuddee si nag sama xarit sama jigéen dërgën Seeri Baye Laat moom tamit tuddee naa ko ci bis bi. Siini sama xarit la moom tamit dafa may jàppale Touré ñooñ ñëpp samay xarit la ñoom tamit samay mbokk géwél la dëgg du neex bis bi nag Adja Yacine daa war a ñëw. Fatou Waré war a ñëw Asuñaan war a ñëw Xadi Jullo war a ñëw ñoo ñëpp ci bis bi leen bokk bis bi daal ñi si bokk ñëpp dañoo bari su ma leen lim du mu jógee fii voilà waaw. léegi lan ngay préparé ñoom ñoom lan leen préparé si jour bis ba ndax euh, du yomb de xanaa doo indi say tam rek teg di xoole. non non bis bi. da ngay daal di ñamal gaay yi nga xam ne ñoo la si xam ne kat góor gi mbub bu bis bu ñëwee du yomb. bis bi dina am ceebu jën dina am baara mbay xale jigéen di leen waxtaan def leen saf fulaale def leen saf soo amul lii duñ la yërëm sooy wut dañ lay xërëm daal góor gi man de bëgg naa la li kimbu bay sa baay booy maram jaayay sa yaay yéen a ko gisandoo gis ngeen tey li nga xam ne euh, góor gi mbuub daan na koy wane fi nga xam ne mu nekk yënga yëmbal mu daal di ànd ak waa équipe ba macha allah lii moom kenn ko nettali kenn du la wax nii la demee ah nga daal di sa grand bu baax lan ngay tàggatoo ak waa El Vision Médias. li may ñi nga xam ñoo ne sama ginnaaw. Mhm. Siné ngi. macha allah Touré ngi. Njole ngi Nabou Faye daa jàggi ah ak Fatima ñii nag munu ñii nag munu maa dem. te du ma wax ñoom boobu ba léegi ma ngi ñoom ñooy ànd di def di def tànnber gi di yóbbu ay carte dem nañ fu ne di kaf di ree pare saa sax ma teg leen dil du ma ñëw dëgg du neex mais dañoo bëgg bis bi barke yonent bi kontaan naa ci ñoom nag waxaguma dara nag ñoom tamit ñoo ngi lu am solo ci bis bi lu am solo xam naa bis bu ñu génnee fii ñu bàyyi àdduna ah léegi nag li may tëgg ñoom ñoo ko moom xadi kenn ñëw wuy si ma fii rek si si ni ñëwal si ni ñëwal ñëwal ñëwal kaay xale du ragal kaay xale du ragal ñu nduróo bëti noonu ci loo nekk Chine. maa ngi nii ça va. yaa ngi am jàmm. maa ngi si jàmm ba. lan ngay ci bés bi. ah la 25 ëpp na du ay foo tamit. da ngeen di fël fëlaale wala da ngeen di sànni. xam ne fëlaale wundeel def la ñu sax ca ba ñuy moom. lii la ñu wax ba leneen ñëw amul leneen. macha allah ko gisandoo. Oh! kii nag mooy Khady Deme Touré moom tamit moo yor kaddu waa groupe bi yëpp génération góor gi moom moo yor moom moo yor kaddu gi ñëwal ñëwal ati ñëwal. maa ngi def. mooy séeri àjjana. nuyu naa la séeri àjjana. eh maa ngi lay fay sax. maa ngi am jàmm sant yàlla bu baax. ngay préparé ci bis bi. le 25 décembre ni ñu koy préparé dafa ëpp. parce que dañoo dem ba suñu yaram foo lamb le 25 décembre la ngay gis. ngeen di mbëkkaale wala ngeen le 25 décembre dana mel ni vampire fu waay jot jeex na macha allah yéen ko yene ko gissando giss ngeen tay li nga xamne ne indil na len ko ci yembal ngeen daali and ak man ci li nga xamne mo nek nekk émission yaay kan neena la sa sunu ni la koy defé di leen coxataan ci poxataan muy neex ndax neena la man xale bi maangi ni ah ndox mu sedd rek lay sango moo tax fu sama yaram day daal tang tàng lenn rek la bëgg nga tàggatoo ak man sama jëkkër ji la bëgg nga defal ko fi pire nak dëgg tollu non le fresh ah na bagage yi na neex loolu mom bala ñu ci jëm mom da doon sama xarit bëgguma te tax maa moom ñu ngi xamante si benn studio bi ma doon ñëw di dugal benn affaire yàlla dogal mu doon nit ku baax ah, moom nag mënu wax si moom aadama mi laay baay mu wax si moom rek ndax su ma waxee si moom dinaa wax lu ëpp moom sama rakk la ñoo bokk ndey baay baay ginnaaw bukki mbaar fu ma mënta dem fu ne moom laay yebal mu dem fa ànd ak Youssou Amé Dieng euh, Ousmane Cheikh Fall Cheikh Faye ak Mbaye Bey mi dëgg du neex acca ki moy aadama bëgg naa Sénégal xam ko nag aara nuyu naa fay naa la sant yàlla baax. sa yaram mu ngi sànq lañ mu ngi ŋar. xam nga ñun moom danoo doon ay xale yoo xam ni yàlla dafa def ni danoo nekk ci aar bi te yaakaar naa ni nag xewle na bis boo xam ni képp ku ko tardé tarde sa musiba. xam nga lu tax nee naa la séntu asamaan jaruta buuxante te képp ku ko jéem ak ku ko mën daa bokkul léegi nag li may wax mooy ku si taacu yàlla na nga fekk dégg di déwén.